Mm-hmm. parce que boo mësaan dégg ñu wax dialogue opposition am na ba noppi. Mm-hmm. mais fii islam bi euh, euh, musulman bi ak chrétien bi nekkuñ ci opposition dañuy dund en parfaite harmonie bokk dëkk benn kër bokk dëkk koñ bokk nekk ci école bokk toog ci banc. Mm-hmm. amul koo xamante ne dañ naan ki ma àndal nii la ak kon moo tax ñu bëri boo nee thèse boo nee dialogue islamo chrétien dañ naan non non nañ bàyyi wax jooju. dialogue islamo chrétien amu fii parce que da nga tudd dialogue foo xamante ne tey ji jàpp nga ne ay différence am na wala lu ni mel mais fi ñu toll nii conseil bi fi ñu toll nii lu jëm ci dialogue yëpp da koo jël sànni fële parce que lu mu leen laaj date la leen laaj jàppal date kon concertation moo mën a am. waxtaan da ngeen di toog ngeen waxtaan ngeen ne date bi moo baax bés bi moo baax bés bi jàpp bés bu rafet. bés bu rafet boobu bu ñu ko gisee ku nekk mën naa jóg dem ñi bi dem campagne ci kon lu ñu koy dialogué ci. dialogue am waxtaan a fa am waxtaan ci dat. waxtaan ci dat <laughs> waaw waxtaan ci dat. d'accord bu ñu jàppee bés boobu ba pare nag léegi après ku nekk dem sa. Mm-hmm. lu ngeen di toog di waxtaan naan damay bàyyi ñii damay def loolu mënatul am. Mm-hmm. kon tey jii ñu doon taxaw. bëgg profité ci occasion boobu ne waaw ñi ngi dilee moo tax ñu ñu bàyyi ñi ñu waaye gis nañu sax ñoo xamante ni ñu faree ci kujje politique bi ñu yëg commencé di yëkk ci kàddu yi nii ni lu ñu mel hasard amu si président Macky du def dara ci neen am na lu ñuy xaar ñoom ñu ngi giiñ ba tey nii dil dafa dox ci diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall waaw mais ñoom da nga da nga ñan ñooy jiiñaate loolu mhm. xam nga tey ji euh, candidature Diomaye Diallo dafa am lu muy jur ci opposition bi am lu muy def ci nguur gi Mhm. parce que candidature la boo xamante ne maa ngi dégg démb Mohamed Boun Abdallah Dionne mu am réaction dama reetaan ba sonn TFM. Mhm. mu ne lii du yoon parce que gars dañ leen a ju juñ corruption ak yu ak yu nga comprendre ne nga ne xanaa du candidat moo yokk moom ñu ne ko. léegi <laughs> élection day am da dem élection day am nga mer nga ne dematuñu man je me suis posé des questions mais en fait mais suñu dëkk bi bizarre c'est grave c'est très mais mhm. mais normalement mais ñu ne election am na nga jël beneen candidat si ligne bi muy wax mel ni ku ñu sotti ndox mu tàng kenn nanguwul sax taxaw wax ne ah man wax dëgg yàlla kat kontaan naa ci mbir mi parce que nii ma ko gisee nii kat dañoo naroon naa freiné te def nañu ministre ku jël par naan waaw xam nga nag fii lañ ko doon xaar mais e, e, est-ce du dëggal sa wax yi Souleymane Jules Diop bi doon wax naan euh, ajandi élection yi nekkul président Macky Sall moo ko sàkku mais ñi fare ci kujje politique bi ñenn ñi aussi ñoo gën a bëgg ñu ajandi élection yi est-ce que réaction bi ñu am tamit du méngoo kàddu yooyu nga xamante ni euh, Jules euh, Souleymane yox na ko Souleymane Jules Diop mais mais xam nga lu tax loolu mhm. parce que dañoo bëgg bëgg ak ñi nga xamante ne ñooy waa nguur gi seen bëgg-bëgg mooy lépp lu taxee ak Ousmane Sonko lu bokk ci moom du bokk c'est-à-dire bu ajee mbir mi toggaat ko dañuy fexe ba nu ñuy préparé internet ba lu jege Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko doo bokk. donc coow li yëpp c'est Diomaye. Diomaye moo indi coow li Diomaye mooy problème bi c'est-à-dire mais mais jaara faisons simple rek. Mhm. tey jii doxal nga def benn genre sondage bu na nga wax ci terrain ban candidat nga fiy gis ko xam ne am na benn taxawaay bi mën nañ jàpp ne mën na fay jëlee nguur gi fi nekk ban. Mhm. Ah, nañ nañ waxante dëgg rek à part pur parce que. à part pur am ñi ngi am taxawaayam solo. te pur ñëpp xam nañ mhm. ni mu bindoo. dafa am dafa am ay limites dafa am ay limites ci société bi ñu nekk euh, am na ñoom dañu am lu ñuy wax benn benn benn benn départ boo xam ne dañ koy am ñeneen ñi amuñu ko. Mhm. pur mën na yegg mu ne la gàtt gàtt mën na am 5 pour cent wala 4 pour cent léegi nan laay def am lu am au delà de foofu foofu la foofu la effort yu bëri waroon amee. Mhm. et je pense que loolu lu ñuy construire la à l' mu ñëw parce que am na beneen image boo xamante ne.

ñu ngi commencé woon bugg koo tong-tongee maanaam di xool naka laay récupérer mbir mi na kan laa mën a am fii su su kii demul euh, su euh, yan militant laay fexe ba am leen peut-être nit ñi bu ñu gisee ne Ousmane Sonko amul kenn koo xam ne ñëw na ci moom sama candidature mën na am image bu ñu ko bàyyee xel léegi si loolu lañ doon sukkandiku même calcul boobu ak nguur gi fi nekk euh, malheureusement bi mu jàllaate nga gis ñu bëri dañoo am déception. Mm-hmm. parce que dañu jàpp ne il en pole position. pour gën leen a sori ci élection présidentielle donc loolu moo indi benn crispation bi ak ñenn ñi jàpp ne tey jii bu ñu demee élection c'est déjà perdu mais jàpp naa ne loolu ñàkk gëm sa bopp la parce que si biir candidat am na ñu gëm seen bopp. Mm-hmm, mm-hmm. am na ñoo xam ne bu leen déggee ñu wax da xam ne ñii dañoo gëm seen bopp dañoo bëgg dem gañe ji mais am na si ñoo xam ne gëmuñu seen bopp. ñu ngi ci ay combine ñu ngi ci ay deal ñi ngi ci def nii euh, te te loolu je pense que du foofu lañ leen di xaare sinon rek da ngay da ngay da ngay dugg ci benn benn benn logique boo xam ne dangay mel ni ko ko koo xamante ne da ngay da nga da def tricherie mhm. parce que yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci élection yi waaye yaa ngi ci opposition bi waaye bëggoo benn candidat opposition jàll euh, bëggoo koo xamante ne moo la ëpp doole jàll bëggoo bëggoo bëggoo finalement da ngay dem ba da nga doon ko égoïste et je pense que loolu nag moo tax ñu bëri après bi mu jàllee déception am ñu commencé naan ñu ngay dil ñu ngay def nii ñu ngay def nale ñu ngay def nale et je pense que su fekkonte ne man sama gis bu gàtte jàpp ma ne euh, dil mën na cee am xam nga tax jàpp ma dil mën na cee am mm-hmm. li am tey jii nii vague de libération yi ngay gis nii mais nguur gi la arrangé xoolal nguur gi ci laa doon ñëw sax. vague vague. vas uh-huh. ci mën nga continuer. waaw nguur gi la arrangé. Mm-hmm. xam nga lu tax ma wala loolu. parce que ñoom kan moo leen dugaloon kaso. ñoom ñoo leen dugal kaso. bu ñu leen génneewul tamit ce qui est sûr et certain mooy au lendemain de de l' élection présidentielle leen di génnee. Mm-hmm. te bu ñu leen génnee kooku ñëw tey ji mooy ëpp mérite parce que les gens vont dire que ni gis nga ñii ñëpp mu génnee tey ji defuñu woon dara te génnee na leen. Mm, plus de mille personnes génne leen. balaa balaa ngay dem ñu leen di génne. balaa ñuy dem ñu leen di mi gën a ñaaw seen. ginnaaw mm, moo tax tey ji euh, ñu profité ci occasion bi génne leen kon génnee détenu yi est ce que génnee détenu la. je mm. pense pas. su fekkonte ne tey jii dañ leen a génne mu leer nañu ne ñii am nañ lu ñu def comme ñoom ñoo ñëwee lañ leen ko doon jiiñee ne da ngaa sàcc xaalis facture yaa ngi nii parce que duñ fàtte loolu am na fi ñoo dañ leen fee jiiñ ay fausse facture fi yuñ fi mhm. falsifié am ñoom mhm. dañ leen fee jiiñ lii ak lii ak lii ak mhm. am na ñoo dañ leen fee jiiñ ne leen da naa am da ngeen naa ngemboo loo xamante ne moom moo leen ko ñoom ñëpp dañ leen naa jiiñ donc les faits sont là mais ñii am na si ay détenus yoo xamante ne tey jii ku ci taxaw ci baar ñu bàyyi la nga ñibbi ku ci taxaw ñu baar ñu nga bàyyi ñu ba avant ñii. te ñu ci jugé wul sax ñoo ëpp de. mais ñoo ñoo ëpp ñoom ñëpp koy jugé leen jugé wul leen Diop tey tey nañ ko fi at. Mhm. bàyyi ko mu dem taxaw ñu relaxé ko mu dem mu dem ñibbi purement et simplement waaw. Amidia. Amidia ñeneen ak ñeneen. Mhm. toppee la ci yoo xamante ne yu ay chef d'inculpation yu doy waar yoo xam ne da nga naan. force spéciale lii boo ko toppee ay force spéciale. Mhm. léegi ñoom ñëpp nga bàyyi la ñuy bi léegi kon ku tooñ. ñoom ñi leen jàppoon ñoo tooñ. et je pense que boo demee ba rendre compte ne tey jii yoon bi nga nekk ni du yoon bu baax bi yoon bi nga nekk ni du yoon bi gën nga dellu ci ginnaaw moo gën bu ko deful keneen ñëw di ko def eh, nga bëgg a profité foofu nag parce que bu génnee arrangé wu la wala bu euh, bu bu bu candidature am jàllee arrangé wu la nga jóg di taxaw naan no gars yi dañuy dil dañuy def nii moo tax gars yi di génn euh, protocole baa ngi gérer tey bi ma gisee une tribune bi dama reeba son <laughs> yow naka ngay xëyee ñëpp di wax ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne Euh, président Macky Sall euh, décret bi nga jël ak loi bi jaarul yoon yow nga xëy ne euh, Macky Sall kaabul Sonko Macky ngay woo Sonko. ma ngay woo Sonko ngay woo Sonko mais bu ñu jàngee hiérarchie hiérarchie hiérarchisation de l' information maanaam ni ñuy teglantee information ci une dafa am yoon. Mm-hmm. doo gis kii ray na kaña kële ray na nag fële nga jël ki ray kaña bi def ko ci une bi. mais xanaa au moins kaña nag moo war ma ci àddina. wax dëgg fa yàlla. mais boo jëlee ki ray kaña bi def ko une bi ça kon kaña nga. wax dëgg fa am na loo bëgg ci kaña bi. pourtant euh, euh, ah? noonu laa ko doon waxee sànq dama ne euh, bu dul woon coow conseil constitutionnel bi lay xew ci dawaan bi dëkk la jël Barthélémy Dias bu ñu xëyee tey journaux yu bëri moom la ñuy titré mais euh, mais aussi li euh, ndogal bi conseil constitutionnel jël euh, Moustapha waruñu fàtte aussi li nga xamante ni Barthélémy Dias def na ko niki dem ci décret jàmbarlo bu fa amoon mu génnewaat pistolet est-ce que la ñuy xaar dëgg-dëgg ci homme politique rawatina maire boo xamante ni yow yaa ngànk gox boobu yëpp. non je pense que gis nga buñ la buñ la jiitalee am na waroo waroo émotif. effectivement waroo émotif waroo mm-hmm. waroo doxee ci ay sentiments ak lu moo tax euh, man benn instant ba dama jàpp ne Ousmane Sonko tooñ nañu ci côté yu bëri. Mhm. tooñ nañu ci côté yu bëri mooy am na ñu bëri ñu nekk mor maire ñoo xamante ne tey jii budul woon moom tey jii amaana du ñu nekk maire jaare yaa ngi reetaan dama <laughs> li nga wax la. am na ñu bëri ñoo xamante ne am ñoo xamante ne. budul woon moom tey ñu nekk maire. dëgg la la c'est vrai am si ñoo xam ne nag fañ leen teg la xam doy na. Mhm. lañ fay def mi ngi noonu mais tey comportement yoo xam ne je pense que am na ci ñoo xam ne tey seen gox regretté ñu lan moo tax ñu nekk maire. Mhm. am na ci ñoom ne seen gox ngi regretté lan moo tax ñu nekk maire ku ci nekk à juger mais je pense que comportement bu ñu mel xaaruñu ko ci moom. Mhm. parce am na foo xam ne boo fa